mi ngi ñuy bëgg ray ak ñetti tam mi ñuy bëgg ray ak bëla lundi passé bëla biit bëla eh, ñaw yi doo nga wute sukaa eh, kaddu gaa ngoog dama sol bëla boole ko jiin ñetti couleur la yor ah d'accord eh, bépp pass sol la ko booleel ay sukaa bàyyil ma maas mbubb mi ñëw waru woon a sant mbubb de benn tu sant la waroon a sant <laughs> ay ci sukaa ne faat ngay dalal am ki nga xam ne rek moom moo di El Hadji Malick Gakou du dégg dafa bëgg a waaw waaw voilà ak ki nga xam ne rek moom moo di Gaston Mbengue nga na euh, président Macky Sall toj na fi <laughs> voilà donc El Hadji Malick Gakou moo fi moo toog El Hadji Malick nuyu nañ la Gakou euh, maa ngi lay fay di am mbégte ak kontaate ci invitation bu am solo bi nga xam ne moo nga invité <coughs> di nuyu Sénégalais yi di am ci yëpp mbégte ak kontaante di nuyu encore une fois toute la population sénégalaise. Mhm. et aussi tamit di nuyu waa Pologne. di am ci ñoom mbégte Pologne waaw Pologne fa la nekk fa la jàngee xam nga. Pologne laa jàngee fa la jàngee euh, def euh, li nga xamante ni moom la ñuy tuddee lu jëm ci wàllu économie. ak mhm. sociopolitique. macha allah ak lépp loo xamante ni jëm na ci wàllu euh, économie et finance politique politicien. dëgg la mais El Hadj Malick <laughs> politique politicienne. <laughs> Eh boobu de baaxul. El Hadj Malick mm. yow da ngaa mës a nekk député. Euh, député bokkul ci li nga xam ne mooy sama kii. mais mm-hmm. aussi euh, mës nañ ma élire mais de dew ma woon assemblée nationale. Ah, parce que dama nekk nit koo xam ni euh, séntu naa leneen loo xam ne. loolu député est que mës nga nekk maire. waaw maire aussi mosuma ko nekk. mais mm-hmm. mës naa gagné maire bu Guédiawaye mais après ah, ah. finalement. ma nekk mës nga ko gagné noo gagné après ma daal dem conseil. Euh, régional. nekk li nga xam ne moom la ñuy tuddee euh, conseil régional nekk président conseil régional bu Dakar loolu laa nekkoon li nga xam ne moom laa nekkoon. kon loolu lépp antuwul ba pare nga bëgg a. non antu naa président conseil régional bu Dakar. ok maanaam maa yilifoon lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllu uh-huh. ko. nekk président conseil ah, euh, lijjanti lenn président. lijjanti hmm? da nga naan di waxal leneen. parce que ah. sa question bi baaxul. parce que eh. li nga yaakaaroon amul. déedéet non non parce que ah lu lu leer loo xam ne logique la non non non ma fanaanal ma euh, danga ne la mës na ko nekk waaye lépp mës na ko nekk mais loolu e-, ah. que li ne danga ni lii dama koo jël joxe ko. dama ne la léegi mbaa bu ñu la joxee kon réew mi doo ko joxe waat. Euh, jërëjëf soxna si ndax ndax Ahmed dara moo nekk. dama booy laaj dangay laaj ca bañ a reer li ngay def nii yëpp ñàkk fayda la. du ñàkk fay dama laa laaj. vraiment dama laa laaj tontu ma. donc bàyyi rey. dama lay rey yow yaa moom rey. dama lay ree laa la wax laaj di ree yow la ak Aïssatou Diop Fall li mooy wane ni seen bopp yi dese na fees amul benn problème ah, loolu amul problème frais gagnante wu ma parce que loolu laa ko yor parce que ah. ñoom ñaar ñooy reex wax di ree donc di kuy kuy poser question di ree boo yeboo nga xam ne bopp bi feesul parce que bu sa bopp feesee di nga laaj question yow dama ne la président buñ la ko joxee mbaadoo mbaadoo ko joxewaat keneen jërëjëf euh, soxna si ci sa laaj bu ñàkk fayda bi mais tontu la tontu boo xam ne tontu bu am euh, fu la euh, parce que laaj bu ñàkk ñàkk fayda bu fekkee ne ki koy tontu tontu ko ci. Ahmed Aïdara ñu ngi lay nuyu dina mel ni. maire Guédiawaye bi. voilà lan mooy sa question. li ma la laaj <laughs> li ma la laaj laa la ko xaw ma ko ma ne boo ko xamul xaw ma ko. réew mi nga joxewaat ko loolu ok euh, jërëjëf réew mi bu fekkee ne dañ ko teg sa loxo loolu dafa nekk loo xam ni euh, mënoo ko joxe waat. mënta la jënd Guédiawaye di nga mënta la jëm réew. je vous en prie soxna si. maa la ko ànd ko yar parce que li ngay def nii eh, du respect. jërëjëf nga jàkkaarloog président de parti <laughs> nekk koo xam ni. ban parti la. grand parti grand parti parce que yow mu ngi xamut sax ni mu invité ma. <laughs> xam naa grand nit te mu invité ko. donc c' est extrêmement grave. defal sa dem mooy journaliste ni lay ay dara moo tax journaliste. dëggee ja waay ci réew mi. mu ne liggéey parce que bu dañu jël nit mu ne journaliste la. ba noppi xamut mi nga xam ne ma noonu la war a laajee di wax ay wax yoo xam ne wax ko daan saret ay wax noonu nax sa xandal amul benn problème loolu ay erreur la yoo xamante ne réew mi daal bu da nga koy joxe waat na ma da nga koy joxe après nga joxaat waaw ah, mais président yow yow xamoo ni réew mi yi ci bari président euh, coalition lu ci bari la gaa yi demee waaw te yow nee nga grand parti judduwul pour nekk ci gannaaw benn parti waaw judduwuma pour nekk ci benn gannaaw benn parti bu fekkee ne ñoom nar nañoo ñëw nekk sama ginnaaw baax na mais ñëw pour di ma boot man kenn atanu ma ba du mën a ñu may boot. loolu mooy manque de modestie de tangam ah, mooy lan yow dama bay ki yow ko du ma nangu ñu may boot. am na ñoo xam ne bërki démb lañ judd doon liir bëgg maa boot maa lànk. donc pare naa sax da nga am problème pour jéggi ko. merci bi yoon dinaa ko jéggi incha allah parce que loolu yëpp c'est laqati avant. nga jëli AFP boole ko sa. dem euh, sa rakk bi yóotu assemblée nationale waxtaan na ci ak yow Ahmed. Ahmed loolu dafa ëppal nee loolu waroo ci woon a dugg. Ah! parce que Ahmed bi ñu ko laajee CVM moom li mu am mooy eh, kii la am eh, BFM. déedéet jàng na nag. BFM la am ah mais jàng na nekk na maire ah, mais mais Ahmed la hmm. am. na droit laaj ko de formation journaliste ñu forme ko foofu dans le temps. mu jàng fa journaliste ñu wan ko nit ñi de presse CVM bi ñu ko ko laajee Ahmed bi mu koy indee benn fooy la. yow bu la laajee sa sa CV ñaata fee la yow. CV am na benn fooy la bu génne ko depuis nii. <laughs> yow léegi yow euh, danoo bëgg nga wax ñu say programme. gars dañoo laaj CV am benn fooy. alors mu ngi mel ni ba romb bi rek mu bindal bopp <laughs> Ameth Diop tàmbali la sama CV nga maa bàyyi mu continuer. <laughs> gars yi ñëw indi ay classeur dossier benn fooy lay indi. Euh, kon kon gisoo. aysa mi ngi ci nag ah, ñu koy ñuy nuyu ñu koy nuyu waa Thiès kaay benn aysa ay bokk seen géej waaye de moom nga war a soutenir. gaay la ko Ameth sa CV non sama waay la. ñu ci nuyu waa Thiès kaay ci nuyu Mama Africa. Mm-hmm. nekk fa fële nga xam ne rek moo di ca cassation ñu ngi koy nuyu lu bare bari donc ñu ànd ak Gaston Mbengue Gaston ñu ngi lay nuyu Mbengue. maa ngi lay fay di la nuyu di nuyu Sénégal di wax ni maire boobu di lambar lambari yi ci pare bi te mu dëkk Medina di wax ministre conseiller kooku. nañu dimbali te xam ni. mbër yi man maay seen baay maay seen nijaay. am na yoo xam ni duma ko nangu. Mm. ab maire boo xam ni gañe ñu duma la. nga daan saaga président de la république foo toll. di wax lu la neex loolu may wax mu naan moo ma jox Macky Sall joxuma Macky Sall Macky Sall bi mu ma woowee man maa xam ni du yar euh, aussi tam par respect. ma ne mhm. naa woo waay maire boobu fekk maire bu mu ngi toogoon à côté. xanaa amul tur ma woo ko man du ma tudd turam. Bamba Fall aussi jaru ko. mais li am solo mooy maire Medina bi ku ne xam na ko. donc mu am yoo xam ni mi ngi koy wër di wax di lambar. temps bi mi ngi dem. waaw jërëjëf. waaw kay wax pour nuy waale euh, Sénégal. waaw kay euh, euh, Gaston. Hmm. fan nga teg ni président Macky Sall dina mën a am troisième mandat ak ndax nee nga toj na Sénégal. waaw toj na Sénégal parce boo xoolee. li nga xamante ni bii moom la def ci Sénégal ak mooy foo dem ñu ngi wax naan Macky Macky Macky. waaw boo demee instant bi ñu toll nii dégg ñu wax Macky Macky. <laughs> boo demee fi nga xam ne mooy Kounoune dégg ñu naan Macky Macky. Sangalkam Macky Macky. Medina boo demee Kër Massar dégg Macky Macky. Medina boo demee Medina dégg Macky Macky. loolu nag boo koy dégg. yow si bii am ndox yi nga nga tànn de. vraiment nit la koo xam ni fu ne ñu ngi ko fay tudd. Eh, di ko bàyyi Gaston day saboté président. ndax foofu da koy saboté. dama ne ñu koy bàyyi xel di ko non non non Gaston yaa ngi toj na Dakar non déedéet Gaston yaa ngi yaa ngi saboté nag président Macky ndax foofu nga fa wax yëpp ñoom ñëpp a ko mere parce que foofu inondation moo fa am ñoom seen kër yàqu nga naan toj na foofu jafe-jafe gi ñu nekk président fu nekk yónnee na fa ay litre essence Kër Massar litre essence fu nekk yónnee na fa ay litre essence pour ñu pompe ndox yi loolu aussi tamit. lu am solo la solution pompe solution du solution. essence bi daa yegg si wul xanaa. Ah, kër Masaar moto pompe yaa ngi mi ñëwaat. loolu kay doon ket démb. kër yee doon seen bopp. moto pompe. ah bon ah, loolu kay. léegi wax ñu fan nag fan ak fan. kon foofu tamit ñu ngi koy toj mi ngi koy toj kon. moom ku détour <laughs> na. parce que président day joxe mais day gars yi dañuy détourné. Mhm. loolu ñëpp gis nañ mhm. président day joxe xaalis bu bari am ñu détourné. Mhm. loolu nag defe naa ni ñun ñëpp xam nañ ko te di wax ni euh, <laughs> président toj na Sénégal. président ak ni ko ak dëkk bi ni mu mel ni. nga maa tey maa ah, ko ah, ah. maa dem président toj na Sénégal bu la neexee ni yaa xam bu la naqaree yaa xam kii amul question bu ko amoon wax wax na ko bu yàgg amoo loo ma laaj jar te laaj. <laughs> da ngaa histoire da ngaa histoire lu tax bu bëri histoire doo ko laaj. Eh? bu ko bu baree soo lay nuyu bu baax maa ngi lay fay munumaa dëkk di nuyoo booy laaj laaj. <laughs> mais Gaston. waaw yow yow mel ne réew mi cooli cooli sa bopp rek. maa tey yow nag. réew mi réew mi yow it bopp rek. yaa ma réew mi ñor. noonu loo dekk toog di waxal waa may def làmb. man làmb nga naan ma damay toog di waxal waa réew mi yow yow heure boo toogee sa boo toogee sa bopp heure boo toogee sa bopp ngay wax heure boo toogee sa bopp ngay wax. man damay créer làmb mbër yi bu ñu demee ba nekk milliardaire mbër bu ñu demee ba respecté ko ci réew bëgg koo may sa doom man gas doom maa tax waxal mbëri mhm. loolu bu ko weddi bu demee tey ba jigéen ñi di xëccoo mbër yi man naa tax dégg naa nag de sa xol bu rafet bi nag jiwal nga ak léegi nag bekkaay nag dëgg yàlla waaw mhm. bekkaay xam nga moom dafa ëppal parce que dafa war a yam ci topp ma di di wax li nga xam ne moom laa wax wax ju rafet waaye bu bëggee jekki jékki di xuus ci yenn yi ma yemale ko. mais juboo ngeen nag waaw Bécaye dafa baax nag. moom moo ñëw juboo. Bécaye dafa baax mais way wi këpp gaal la doon way quoi. ma ne way bi xam nga am na yoo xam ne jaadu mi ngi noonu kon ba suba incha jeex na. sa temps jeex na kon donc àdduna incha allah tàmbalee di ngeen. sa temps jeex na. donc à demain su ka mbay daane jaajëfal nañu la bu baax a baax waaye rek ñu souhaiter un très joyeux anniversaire à Mohamed Fall di doom ci Mamadou Fall technicien ak soxna Astu ñu ngi koy ñaanal mu dund nekk magum lislaam dund ba yor leen yal na yàlla guddal fanam Mamadou Fall moom Mohamed ay ca Cheikh Sadibou Touré nag nekkoon fële ca rajo Oxygène lu dul Sëriñ Touba ñoru ko lu dul murit ñoru ko mu génn àddina yal na ko yàlla yërëm sunu borom xare ko aljana ci barke weeru safar gi ñu nekk Bambi nuyul ma monsieur Kébé sama soppe boobu ne ko maa koy nuyu di ko ziar bu baax a baax ayca fulaar yaa ngoog Bambi wuti ci douzaine yow daal wuti ci douzaine rek ayca bu émission bi yembee nag ba ngeen mën ko seetaan bokk na ci ñi ko jàpp luy fay luy fay merci beaucoup à toi merci beaucoup à Babacar Lo Babacar Diouf l'homme de di ko côté de la régi nag Modou Fall moom moo fa nekkoon chéri Astou ak bintu faal moom it borom Kër Massar ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax leen daje suba incha allah ci kattanu yàlla